nekkin wu metti wi nga xamante ni ñu koy nekkee ci biir prison bi. Mm-hmm. jaara dama dama dama naan problème bi problème la <laughs> parce que détenu politique xam naa détenu sax <laughs> ñi nga xamante ñoo di dañoo tàmm di wax détenu politique parce que <laughs> mënuñ comprendre koo xamante ne ko tëj ci kaso bi mu am téléphone yor téléphone bay filmer loolu moo waral problème bi déjà téléphone yi téléphone bi nan la def ba accéder ci nan la def ba ñi nga xamante ñoo di garde pénitentiaire ñoom ñi nga xam te chaque jour dañ leen di garder chaque jour dañ leen di fouet mm. dañ leen def ba téléphone boobu rëcc leen ba problème di fa am ñu koy filmer du ko dugal ci li nga xamante mm-hmm. moo di ci internet wala di ko envoyé ni nit yi koy relayé wa mm-hmm. dafay nekk mbir moo xam ay question yu bëri bëri yuy posé la parce gis nga vidéo bi di gis nga ojo bi nga xamante ne ak kon mbokk ci ARSET def na ko euh, parce que nee ba problème bi amee moom woote na ñoom ñi nga ñoo ëmb kuréel gi nga xamante ne ñooy jàppale ñi nga xamante ne ñoo di détenu yi nee na am na woote na fa téléphone bañ demee waxuñ ko lu leer loo xamante ne mën na cee sukkandiku mbu indil ko nit ñi hmm. donc damay faral di wax nag détenu ak lu mu mënti def ak lépp loo xamante ne nii euh, def na ko ba dugg fa

ñoom jox nañ tamit seen version des faits. parce que nee nañu li nga xamante ne la ko détenu yi waxee ci vidéo bi demeewul na parce que détenu yi nee nañ dañoo ñëwoon di ñu fuyee di ñu xoqatal di sotti suñu ay matlaayu ndox ba tax ñu tam loolu moo tax ñuy rébellé parce que daanaka depuis ay jours ñu ngi dund loolu. Hmm. peut démb la ko askan askan wi euh, dégg. Hmm. wala démb la vidéo bi ci la ñenn ci presse bi doog ko jot mais ñoom xam nañ ne daanaka deux jours ngi nii ñu Euh, ñi nga xamante ne ñoo di détenus yi dañ leen waroon parce que à chaque fois dañ ñëw di leen fouiller di def ak li ni mel ainsi de suite di appel léegi nag ñoom pénitencier li ñu wax mooy nee nañu loolu la détenu yi bañoon loolu moo waroon li nga xamante ne moo di affrontement bi mm-hmm. ba tax ñi nga xamante ne itam ñoo di yi nee nañ ñoo taal seen mbatlaay ci biir chambre huit bi nga xamante ne moo amoon ay jafe-jafe donc communiqué bi loolu la wax ne nañ détenu yi ñoo taal seen matelas yi euh, ba waral ñoom ñu ñëw pour fay lakk gi loolu moo waraloon ñu ne matelas laay tooy ainsi de suite ainsi de suite mm-hmm. ak lu ci mënta am rek damay faral di wax naan euh, dëkk boo ko yoree même ni nga xamante ne sax ñu ngi ci kaso bi wala ak nit koo mënti doon nga nekk ministre nga nekk koo xamante ne nii ak sa sa sa sa ñàkk fu mu mënti toll dañ nga war a gis sa bopp ci li nga xamante ne moo di réew mi. Mm-hmm. pour man askan bi pour man Sénégal yemul dakaar dong waaye Sénégal waru yem ci ministre bi dong. Mm-hmm. waru yem ci journaliste bi dong. képp koo xamante ne doomu Sénégal nga da nga ci war a gis sa bopp gis nañ également liggéey bi nga xamante ne euh, ministre bi ñu def na ko muy Ousmane Diagne. dem na fa waxtaan ak ñoom ngir indiwaat li nga xamante ne moo di jàmm loolu la ñuy xaaj ci li nga xamante ne ñoo di suñu njiit yi. Mm-hmm. bu fekkente ne secteur ba nga nekk problème am na fa yow yaay a dem xool naka ngay apaiser li nga xamante ne moo di situation bi donc nag bu loolu weesoo également euh, nañu lijjanti téléphone boobu nan lañ def nan lañ def également ba mu rëcc ñi nga xamante ne ñoo di garde pénitentiaire yi ba tax vidéo boobu daal di circuler parce que ku nekk joxe nga sa version euh, détenu yi nee nañu dañu na nga xam te ne lañ la doon fuye wala la nga xam te ne lañ leen di appelé peut-être dañ ko jaaralewut yoon dañ leen di xoqatal dañ leen di teg ay lu métti loo xam te ne waruñ leen koo teg gis nga bi génn ne ñoom ñoo taal li nga xamante ne moo di seen néeg ba seen ay euh, moo tax ñu di ko fay ak lu mu ci mënti am daal nañu ah, bàyyiwaat xel bu baax a baax ñi nga euh, xamante ne euh, parce condition de vie yi nga xamante ne la askan la détenu di dund dafa métti gis nga ki nga xamante ne moo di benn avocat waxoon na ko mooy avocat ki nga xamante ne moo nekkoon Alassane dégg nga li mu ko waxee mooy Alassane mi nga xam te ne mu bàkku ci parti Pastef ba ñu jàppoon ko mu ne psychologiquement détenu politique yi dañ leen war a détenu politique yu bëri dañ leen war a jàppalewaat parce que da ngay gis ne ñi nga xam te ne génn nañ tu as l'impression que am na loo am na sëkkal yoo xamante des na ci ñoom. Mhm. te condition de vue yi nga xamante ne détenu ñu ngi koy dund nañ ko soyante bu baax a baax assise bi nga xamante nag defoon nañ ko je mhm. da ak lu mënti def ak lu mënti am ay nit lañ nañ leen dox seen ak ak seen yelleef. Mhm. ci loolu lay ñëw sa seen condition yi nga xamante moom la nekkee ci biir euh, prison yi Amina mi ngi wax que ni bi war nañu ko lijjanti d'accord mais aussi war nañu lijjanti dundindu euh, euh, li nga xamante ni ñooy prisonniers yi ci biir indi euh, ci prisonniers yi ndax jàpp naa ni comme ni nga ko waxee sànq naam xañ nañ leen seen liberté jàpp nañu dañoo def moo tax ñu xañ seen ay liberté mm-hmm. mais teewul am nañu sañ-sañ ba tey am nañu ay droits yi nga xamante ni war nañu ko respecté ci ñoom du tey rek la ñuy dégg ay problème ci wàllum prison yi yàgg nañu koy dund defe naa ni ci li nga xamante ni noonu la ñu ne maltraité ak yeneen yu ni mel donc est-ce que jotul tey nag euh, ñu joyanti yu ni mel. Euh, euh, véritablement kay jaaro loolu loolu loolu loolu loolu je pense que ñëpp yàgg nañ ko yàgg nañ ko di wax. Mhm. et wax dëgg yàlla su dee état dem na ba war a mën a tey jii ni vraiment assister les prisonniers day doon loo xam ne daal dañ koy rafetlu mooy que nit nit la te nit nit rek la mën a doon te nit ak lu ko mën a dal ak lu mu mën def ay njuumte war nañ koo warma war nañ koo suturaal war nañ koo jox benn gëdd e foofu la ñu yenn dëkk yi xawee raw gis nga dangay gis di sax tey jii nii boo bu dee ci match de football nga ñëw wàcc ci stade bi daw pour lonk jour bi dootoo ko defati. Mm-hmm. soo moytu bu dee Afrique mais boo gisee tubaab bi suñ laxasee ba jàpp dañuy xool. nu ñu lay yóbbuwaate c'est-à-dire que dóor bi maltraitance bi niñ koy defee ci ñun suñu dëkk yi ak dëkku tubaab yi du bokk. Mm-hmm. loolay waral tey jii nii ñu naan euh, l'humain dafa am benn mérite l'humain dafa am benn gëdd buñ ko war a jox. Mm-hmm. que soit mu nekk ci hôpital bi que soit mu nekk ci prison bi. mais tey jii ni soxna jaara ban différence nga mën a def entre ki nekk ci prison bi ak ki nekk ci hôpital ñoom ñaar ñëpp son sont prisonniers mm-hmm. mais seulement ñaari prison yi bokkul mm-hmm. kii dafa nekk ci benn prison boo xam ne mënul dem këram parce que dañ ko war a faj mais tamit kële dafa nekk prison mënul dem këram parce que dañ ko war a faj dañ ko war a faj mooy que am na lu mu def lu deful ñu indi ko pour corriger ko waaye est-ce que correction boobu noonu est-ce que correction égale maltraitance non est-ce que correction égale duma est-ce que correction égale saaga dafa am loo xam ne c'est le minimum et man yaakaar naa ne il est temps ñu améliorer seen condition de vie et pour man amélioration des conditions de vie des prisonniers ça doit d'abord commencer par la réfection un des prisons mais par la construction d'autres prisons mm ñaanuñu yàlla kenn dugg fa di nga gis koo xam ne nag dina ni waa lu ñuy doyee ay prison yu bëri mais da ngay gis ni yenn prison yi sa date depuis avant l'indépendance wala yii boog depuis l'indépendance ba tey ñuy fonctionner bénéficier wu ñu réflexion amul lenn loo xam ne améliorer nañ ko ci mm-hmm. yokk ñu seen surface yi pendant ce temps ñu ngi wax problème hectares yi am na ñoo xam ne nee nañ dëxëñ ay hectares jël ñiy maq suuf si ñiy farankulaay si mais je pense que amélioration condition amena des prisonniers mu ngi commencé ci defar ay prison mm-hmm. ci biir prison yi war na am ay aire de jeu ci biir prison yi war na am parce que nit ki psychologiquement il est travaillé psychologiquement il est victime mais tey jii nii su amee ay aire de jeu dafay am mais am na lu ñu ko war a def de telle sort que nit ñi sax dinañ fàtte ni ñoom prison la ñu ne. exactement. améliorer condition de vie des prisonniers aussi longue détention yi aussi nañ ko nañ nañ ko xoolaat mhm. wala nga ñëw rek ñu ne la garde à vue teg la fa duñ la jugé. Mm-hmm. retour de parquet yu dul jeex. Oustaz Assane mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy wax keroog nee am na ci loo xamante ne prisonniers yi ñu ngi koy dund. te jaadu nee moom moo ko gën a métti foofu mooy retour de parquet. retour de parquet yu dul jeex parce dem yóbbu la fa nee fa nga xam fa ngay tëgg ay kañaak nee lépp tey ji am na ci ñoo xamante ne yow ñoom dañoo non seulement dañu seexlu mais ragal nañ sensible lañ sensible boo xamante ne psychologiquement loolu rek mën nañ leen a mën na leen a atteindre léegi nag te il faut que également suñu état bees bi ñu jël ci ay mesures condition de vie prisonniers yi métti na jaara parce que koo xamante ne yow ya déjà pour man tëj kaso rek loolu rek doy na coono yow nit nga privé ko liberté rek de sa liberté. Mhm. loolu rek dafa de waxtuma laa nga koy teg ay coono di ko métital garde pénitentiaire également war nañu pour man dawal yërmande bu baax a baax ci li nga xamante ne am na du ñëpp nag parce gis nga Oustaz Assane Seck mu ngi koy wax keroog nee na am na ci ñoo xamante ne joxoon nañ ma cër boo xamante ne man sax dama daan am gàcce. Mhm. dañ koy joxe Oustaz Assane Seck dañ ko joxe. Mhm. koo xamante ne. prisonnier parce que am na ay oustaz Assane Seck yu bëri yu fa nekk am na ay ñoo xamante ne ay kilifa lañ ñoo xamante ne ay kilifa diine yu ama am solo wala ñoo xamante ne même bu fekkente ne kenn xamu leen yàlla may na leen xam daraja goo xamante ne kenn xamul nu mu toll donc bu fekkente ne kooku dafa ñëw nga di ko def yéen nii

ba pare fàtte ko fa ba pare ay dossier am la kooku loolu mooy yow deel ca kaso loolu également war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce yu woyof yoo xamante ne c'est à la mais ay daan yoo xamante ne yu ama am solo la gis nañ ki li nga xamante ne moo di ca assise ba bañ koy clôturer gis nga Pape Abdoulaye Touré lam lam fa waxoon nee condition de vie détenu yi dafa métti parce que ñoom xam nañ ci dara mm-hmm. Mm-hmm. donc ñoom dañ ñoom sax tane woon nañ parce fierté lañ ko defoon parce que ñoom ñu nañ prison defuñu ko gàcce parce que xam nañ lu bon dugaluñu fa mais musiba dugaluñu fa mais dañ doon xeex ak suñu dëkk moo tax pour suñu dëkk moo tax ñu dugal ñu fa donc je mbir a baax ñi nga xam te ne itam su fekkente ne sax dafa rey nit ak lu mu mënti def ak cas bi lu mu mhm. critique critique critique am na ak ak yelleef am na ak ak yelleef moom la am te loolu lañ mhm. ko war a jox nit même dama ne nit ci boppam sax dafa am àq ak yelleef yoo xamante ne daf ko am. Hmm. parce que da faral di sama benn tata mu ne ma Sénégal dong laay gis fii policier arrêté la di la saaga wala mu lay. mool mi am yenn comportement mu ne ma Europe policier dañ lay respecté de la sorte que kii kat respect bi ma jox nii dinaa def le tout ba damay nekk en règle xam nga mm-hmm. kooku ne ko am fulla la wala ko xam ne bañkat la mën na ne du ma nangu may yuux wala du ma du may def nii bu ko defee euh, confrontation am nga wax mu wax après problème yi am je pense que loolu également ñoom ñi nga xamante ne ñoom gis nga nit bu la yàlla tegee ci yenn yi mm-hmm. war a Mm-hmm. d'autant plus que ñoom ñi nga xamante ne ñoo di garde pénitencier yi surtout que du ñëpp parce que du ñëpp du ñëpp nañ koy faral di wax du ñëpp am na ci def yenn ñu ngi koy éviter bu baax euh, nañ ko am parfois bi ci boppam dañ lay xoolee ay bët yoo xam ne yow da naan est-ce ci kaso ba sax gënul voilà également ñun ñi nga xam ne ñooy société bi nga xam ne ñoo war a accueillir prisonniers ñuy bàyyi xel bu baax baax di leen intégré waat ci li nga xamante ne mooy suñu bopp waaye itam di leen dimbale parfois nañ gis prisonnier boo xamante ne fii la dëkk par exemple Dakar mu am wala li ko desee bareetul ñu yóbbu ko fa nga xamante ne euh, moo di Tamba par exemple mais kooku buy ñëw amul lu ko indi. Mm-hmm. kooku buy ñëw xamul nu muy def amul foofu mbokk. il faut que également état bi def ci de telle sorte que bu fekkente ne tey jii ja ne prisonnier dafa war a génn par exemple bu ñu amee liste boo xamante list liste bu guddal ñu bëri ñoo xamante ne dañu war a génn pourquoi pas ñu indi benn oto boo xamante ne moo leen di yóbbu à leur disposition gunge leen ba seen famille fa nga dëkk ñu teg la fa nga mën a xamante ne di am jàmm soo si wax na ko keroog nee na benn prisonnier boo xamante ne Tamba lañ ko yóbbu woon bi muy ñëw dafa mujj obligé nee na sàccaat pour am paas xoolal loolu sàcc pour mën a am paas. pour dellu mu dëkk il faut que également ñu koy bàyyi xel bu baax a baax. mooy mooy li may wax rek réinsertion bi war nañ cee war nañ cee taxaw. Mhm. defaat ci li nga xam parce que gis nga euh, à force d'être victime ak à force d'être maltraité. Euh, sa xol mën naa am foo xam ne dafay yegg ba day dëgër. Mhm. pour nga defaat yenn yi euh, doo jomma doo di nga doo doo jomma. defaat euh, defaat yenn yi voilà maanaam day xaw a yomb daal pour nga defaat yenn yi wala nga am benn rancune wala nga am benn haine boo denc loolu yëpp sa nekkin fële moo koy jur. Mhm. moo tax li Amina man foofu laa doon dem sax réinsertion bi am na solo. Mhm. parce que condition de vie rek du foofu. condition de vie yi du nañ leen jox ñu lekk condition de vie yi du nañuy nañuy dund ci ci benn espace bi nga xam ne yaatu na dundable na hmm. condition de vie yi du rek nañ nañ nañ améliorer hygiène mais condition de vie dafay dem au la même de ça condition de vie dafay dem jusqu'à la réinsertion sociale hmm. parce que quand on parle de réinsertion sociale dañ koy defal ñi nga xam ne souvent ñoom ñoo perte la raison la raison c'est-à-dire que la raison sociale ak ñi nga xam ne souvent dañoo dem ba nekk ki nga xam ni ba ba nekk ñi nga xam ni ils on été en déphasage avec la société parce que être en déphasage avec la société mooy dem ba yow tu es un anticonformiste anticonformiste boobu noonu moom mooy jur emprisonnement léegi nag bu ñu la emprisonné yow maanaam bokkutoo ci conformiste yi da ngaa ñëwaat ci société bi donc tu mérites une réinsertion mérite réinsertion boobu nag ci lan lay jaar ci benn suivi. maanaam war na am ay centres yi nga xam ne vraiment dañ fay nekkaat nit ki kii waat fa am yoo xam ne dina ko rattraper xam nga voilà yooyu yëpp je pense que euh, vraiment war nañ ko taxawoo ñi nga xam ne daal vraiment. Eh, eh, ñoom ñoo nekk ci prison yi parce que tamit prison jombul kenn. ay mbir yu ma ci ma ma ci marqué man dama nekkoon prison nii la mel. <laughs> wallaahi dama tiit. c'est vrai parce que da ngay gis ñu dangay gis ay nit toog tu as l'impression que na ma yàlla baal ci ci ci cadre gi mais tu as l'impression que fii du ay nit fi demee fii wala ay mala. je pense que condition yooyu man moom ko gisee wallahi image yi daf ma touché bu baax c'est pas léegi mbaaru xar yi sax day rafet am clim merci beaucoup te gis nga euh, mbaaru xar yi nga xam te ne wane woon nañ ko fi a nekk almadi am clim ak télé lépp day rafet am clim donc pourquoi ne yow ay nit lañ ak lu mu mënti def am nañ ak ak yelleef nga mataleen ko parce que image yi man je pense que euh, même bu fekkente ne problème bi am luxe wala dara mais juste nañ leen jox seen. du am luxe am luxe mais au moins li nga xamante ne la. yàlla minimum yàlla minimum la nit ki war a nekk. pour dund. Mhm. nga war ko ci amal bu baax a baax parce que image moom la ma fa gis moom bu fekkante ne loolu moo nekk prison ba wala am na ci gën a extraordinaire. non je pense que war nañ ci jug ci lu mu gën a yal na ci yàlla musal bépp amiin yaa nga xamante ni tamit ña nga fa yal na leen fa yàlla gaaw génne te bu ñu fa defaat mokkul leen fay daal di euh, delloo espérons que ni nag comme image yi génn na téléphone bi nag la ko la fa du la ko fa dugal Cheikh Diop mi ngi may wax que ni plus de deux cent téléphones teg nañu ko loxo ni ki dem euh, kon da lay wan ne après image yooyu lañ commencé di def vérification nga xam te ne yu tegu ci yoon la également parce que xëy na peut-être bu loolu à